Serigne Ndiaye nuyu naa la. gàllankoor maa ngi lay bëgg bu baax. mais Serigne dama laa namm quoi ci ne. bilaay raw di la gis ci mbapat yi di la gis ci làmb rek ngay def jalooro ju rëy tey nga ñëw Kaolack mu nekk fierté bu rëy rëy rëy làmb Kaolack ñii ne de tey ku ne Serigne Ndiaye na njaafat te ku ne njaafat na Kaolack nan nga gisee làmb Kaolack. waaw am kontaan ak mbégte bu baax di nuyu sumay mbokk baax baax waa Saloum particulièrement waa Ndiawat di ma juddoo di ma di ma dafa suma suma xarit Sangomar wax yalla yàlla ñu bokk ben kër di yewono defandoo lépp moom indi fi tey wax dëgg ñaanal ndam li nag namoon na trop namoon na ambiance ko ko vraiment tay sango mar ngay ni muy xale bo xam espoir la ci walum lamb kaw lak waye muy solo fa nga xam moy fas Fass te yow nga bokk fas bokk ci pied ñoy Serigne Ndiaye ginaaw bi nga génnee ci combat bu nga xam ne daan bu gaaw nga daan Cobra léegi lan mo nek sa yoon ak ndax ñi ngi lay wax combat waaw man may deglu xala la laa ndaw laa nekk ci lamb di liggéey nekk suma ginaaw ay kilifa gi di Fass di nuyu su mbaaw tabaake bu baax ak su mbaaw a baax ak su ma yaay yi ma jàppale yëpp ak waa Gambie daal xelal maa ngi liggéey nekk sama kanam daal ku ñëw daal ba bëre waaw ñu gis ne Serigne Ndiaye aussi ci benn côté euh, Moustapha Gueye moo ko yor moom lay déglu te Moustapha Gueye moo yore équipe bi nga xam ne dafa war a dem drapeau chef de l'État Dakar ndax Serigne Ndiaye bokk na ci ñuy bëre drapeau chef de l'État pour représenter Dakar waaw parce que instant bii xamaguñu parce que catégorie dafa jël ñaari ñaari poids xamagoo fi sama nawle sama xaw ma nag kuy waaw sa dernière sortie nga am ci ndam lu rëy mu mel ne euh, ci wàllum komba bëre simple mayoo xale yi dara waaye tamit ci wàllum lamb bëre dóor gis nañ la nga ciy def joloo rek Serigne Ndiaye numéro 2 lan mooy secret waaw liggéey rek ñëpp ay xale lañ ñëpp ay xale liggéey rek liggéey rek sama staff bu baax su may coach su may entraîné su ma ne père Jo xam nga père Maxime Bodi père Ali xam nga Fabrice Alouche di nuyu sama coach yi daal Guinée ñu may entraîné ba tàggat di suma gars yi may àndal si lamb yu baax a baax ku si mel ni xam nga Zal Bada Ousseynou xam nga Mame Samba Obala Modou Lamine suma gars yi ne ne bu ma jug ñu jug ñu fay yàlla yàlla dafal jàmm na vraiment duy waa Njaafa di baax su ma yaay gën a jeng di ko nuyu baax ak waa Gambie gi ma xam ne fa laay di entraîné yooyu suma bab Riyad Aziz xam nga ak waa Cheikh Soumboulou may sax ñëpp di gëm daal ndax ban appel ngay lancé promoteur yi ak promoteur nga xam ne ñu ngi Sénégal yëpp rawatina Yamoussoukro production Pambay. waaw loolu yàgg nga ko dox yàlla dogal àddugul mais mais Modou Yama lu laa lu laa bëgg man mooy bu ma bëri Kaolack damay neex parce que njaaxat fi may nekk sa combat ñaari bis dafay jógee di sama maire dëkk bi Assou Ndiaye di si jàpp parce que sa combat ñaari bis jógee fii ñëw ba Dakar donc su ma fi combat tamit day nekk lu nice si ñoom ak